waaw man la Boubacar Camara euh, nekk adjoint maire Thiès Nord nekk conseiller ville ba pare ma yore euh, chargé des élections bu maitre Moussa Diop président ànd Gori nekk tamit mun nañ ni doomu Medina laa ndax Medina laa laa jànge ba mbag maa ngi woon rue 23 angle 20 def naa fa ay at Medina nekk ci même ci euh, mouvement nawetaan yi. football naa fi centenaire Gibraltar kon xam ne man booy Médina laa mais nag cees laa dëkk. mais en tant que bon euh, oh, nekk fa bari fay xarit mun naa ne Médina laa dëkk am na ñoo xam ne su ma la laajee dañ naan Médina laa dëkk mais man Thiès waa laa je suis né à sama famille ngi Thiès mais Médina moom yàgg naa fi depuis quatre-vingt-quinze. laa nekk Medina ba maa ngi fi jógee en 2009 moom loolu yàgg na. waaw maa ngi maa ngi jàngee école primaire Thiès am BFM CEM Ousmane Ngom ñu affecté ma lycée Lamine Gueye pour ma def foofu série L euh, ma ma dem fa fa laa jàngee ba am fa bac après ma boobu nag Medina laa nekk. fi laa dëkkoon rue 23 angle 20 ci marché Tilène voilà sama sëriñ moom ma dalaloon yar ma foofu pour ñu def ci man diine ak koo xam ni modèle la voilà man nag boo ma ñëw Medina kër gi ma dëkkoon euh, këru théâtre kat la ndax euh, acteur théâtre yu bari falaa leen xamee parce que fi ma dëkkoon mun naa ne Cheikh Tidiane Diop euh, moo fa woon di dund booba ma nekk ak ay doomam ñu nekk ay xarit voilà ak doom yoo xam ne sama grand frère la ñu woon presque ñu nekk na foofu mu am bag nekk université Cheikh Anta Diop jàngee IFAS ma jóge Medina di dem IFAS falaa jàngee après aussi falaa laa xamee maître Moussa Diop voilà parce que boobu maa ngi nekk euh, ministère de la santé ma xamante ak maître Moussa Diop voilà ma nekk foofu ñu xamante ma ànd moom ci wàllu politique depuis 2009 ñu ànd créé ndoo parti AG jot na. def congrès mi fii ENDSS ma nekk premier responsable jeune wu AG jot na maa ko jiite woon euh, M23 bi maa fa doon dem ñu dem bureau Alioune Tine këram gi nekk fii rado ma fa doon nekk man ab Abdou Mbow bi nekkoon responsable jeune bu Macky Sall Barthélemy Diaz bu nekk parti socialiste Thierno Bocoum mu nekk réew mi bu Idrissa Seck Ousmane Ndiaye yore bu Talla Sylla loolu nit wax lu dul loolu ñun ñii ñoo fa nekkoon comme jeune. waaw ñu daan ànd di nekk foofu lakkal Ablaye Wade loolu moom Barthélemy Dias bi nga ko jàppee ci ñu ko doon marcel pour mu génne ci maireem boobu man mi ci laa bokk jëlee ci kanam bu imaginer kon di nga ma fa gis ñu jógee ci maireem di dem marcel ko ba mu dem ministère de de la de l' environnement des collectivités territoriales wetu police jëppal ñu ànd topp di bi ñu topp ci tali bi libéré Barthélemy libéré Barthélemy voilà action yu bari ñoo ko doon def M23 bi aussi pareil ba ni ñu àndee ak Macky nekk ci Macky 2012. politique moom loolu la après Moussa Diop jël ma xam nga nañ naan xar day weesu mbote jox ma fii politique gu parti ma yore ko defal ko fi ay action yu mag fii Moussa Diop meeting bu mu def obélisque maa ko organisé ñu ànd nekk ci parti bi di dox ba élection locale yi passé mu def ma chargé des élections ma représenté ko ci yeewi askan wi nag nekkoon foofu nag voilà ma actuellement nii ba maire yi ñu dem élection ñu gañee Thiès ma nekk adjoint maire nekk tamit conseiller ville loolu daal mooy li nga xam ne mooy sama parcours politique parcours professionnel bi tamit maa ngi liggéey ci benn entreprise bu ñuy wax Dakar Dem Dikk foofu laay liggéeyee voilà mais am na feneen fu ma jot a jaar waa xam ne nga ci boo bëggee gis vraiment politique fu mu am dëgg mu neex gis ay politiciens dëgg ñëwal Thiès Thiès xaw lu ñu yàlla defal mais ay politiciens moom avéré ñoo fa nekk foofu dafa metti li nga wax nii parce que boo xoolee parti yi nga xamante ne bii ñoom ñoo am foofu ay conseillers tey mooy parti yi nga xam ne ñoo nekkoon ci yeewi opposition bi. tey jii benn parti rek ngay wax ne amul fa ay conseillers muy taxawu ndax taxawu dañoo geddoon dem ànd ak Moussa Tine yi moo tax amuñu fa dara ndax dañoo geddoon taxaw dakaar bii bu Khalifa sàll bi jiite Yewwi dafa geddoon Thiès soo xoolee tey ambition yooyu nga wax ànd nañ ci ànd bu rafet ci élection locale yi Babacar jiite mairie ville gagné biram nekk Thiès noor gagné législative yi ñëw ñu seppi Babacar seppi ma seppi ñeneen biram dem élection gagné léegi nag élection yi des moom mooy élection présidentielle ku nekk daa am foo bokk Babacar Diop yor parti politique am amay ambition day dem day dem élection présidentielle wax na def na déclaration Birame Souleye ànd ak euh, Ousmane Sonko ci Pastef ñu ñi day dem élection présidentielle ñoom foofu la ñuy dem man mii Maître musaa Diop sama euh, mentor candidat la président ànd góor def nañu suñu ay déclaration yëpp nekk ci suñu activité yor suñu programme dañuy dem élection présidentielle ku ci nekk nag sa sa sa parti ngay àndal dañ naan kuy xaare kuy wàllu yaan seen kër waaw kon nag ku nekk sa bopp ngay àndal loolu moo fa nekk daal mais à part ça aussi on travaille ensemble amuñu yenn problème yi dañu ànd di waxtaan ci conseil municipal bi yor suñu ay programme di ko doxal nekk ci jàmm daal foofu vraiment amaguñ fa benn difficulté moom waaw non ànd bi ci wàllu cees ci commune cees ak ville cees ànd bu dëgg la gis nga Thiès kenn mënu leen jaay affaire cees kenn moomu ko gis nga Idrissa Seck mi ngi wax ni moomul Thiès Babacar Diop moo la gën a xam ni moomul Thiès suma xarit la. bërëm su lay waxi noppi Thiès moo dëkk politique boo xam ne kenn moomu ko lenn rek ngeen mën a wax Thiès waaye comprendre leen mooy ville de Thiès mairie bi Thiès noor mairie bi intérêt Thiès intérêt Thiès moom soo koy wax Thiès yëpp ànd ak yow. mais nag su génnee frontière bi nag dem jóge foofu nag loolu moom boo waxee li nga wax nii dëgg la ku nekk da ngay bay jëmale si sa wàll tey man nu ma mën a def ba yóbbu waa kër. Babacar yi sax ak waa Pastef yëpp yóbbu leen ci Moussa Diop dama koy def biram tamit pareil Babacar aussi pareil loolu moom ay ambition personnelle la yoo xam ne kenn mënu koo euh, ñëw di ko dut baaraam ci benn politicien naan ko waroo am ay ambition wala waroo jéem a defar lu jëm sa parti loolu moom ce serait égoïste quoi voilà. waaw xam nga yeewu askan moom c'est du passé parce que moom wax nañ ko fii waxu yeewu askan moom parce que boo xoolee yeew yi ne mu taxawee woon non ñun gedd nañ yeew bu yàgg bañ ñu génnee ci liste yi législative yi ci lañ génn yeew yi xamoon nañ loolu xam nga yeewu askan wi ma wax la benn affaire élection locale yeewu askan wi waru woon yàqu ndax liste la liste ñu bari ñoo ciy dugg élection législative liste la ñëpp ciy dugg mais xamoon nañu élection présidentielle du dem parce que présidentielle par juróomi at lay am te du liste par nit la te koo wax ndax bëgg nga nekk président de la république mu ni waaw Déthié Fall boo ko woowoon tey fëgg ko xaaju guddi nga xool li nekk ci bopp bi li muy science Déthié koo bëgg mu nekk président yàlla tim ko nii ak ay malaaka du wax Ousmane Sonko de du wax Khalifa Sall boppam lay wax. loolu mooy problème bi moo tax loolu duñ ci ànd nii ànd bi ñu nekk ni àndu reetaan la rek ku ci nekk di jéem a nax sa moroom bëgg mu jàppale la wala bëgg nga dem looloo ci nekk dañu waxante dëgg te yàlla tax. non F24 am na ñoo xam ne ñu ay politiciens F24 beneen affaire la moo ëpp doole F24 dafa am ay association am société civile am parti politique gis nga M24 bii su taxawee taxaw bu dëgër mën na taxaw taxaw bu ëpp doole bu M23 woon F parce que man maa ngi fa woon F24 mun na bañ a def erreur yi nga xam ni moom la M23 defoon parce que m dañu dem toog di xool ba Ablaye Wade déclaré candidature am. ñu bàyyi ko mu jàll dem élection F24 nag dafa waral lànk quel que soit alpha waruñu nangu benn yoon Macky Sall di nekk candidat ba conseil constitutionnel di ko valider loolu moom waruñu ko nangu loolu mooy première erreur bis bu waxee déclaration ne candidat la noo bala mu koy xalaat il faut gars yi woon ko parce que F24 dafa yaatu. waaye xam nga man Macky Sall lu muy wax ñun ñoo doon ànd ak moom subaa ngoon guddeeg bëccëg Macky Sall bu ñu ko daan attaqué fii Moussa Diop moo ko doon défendre poste caaro yi ngi fi image yaa ngi fii Macky Sall bu ñu koy attaqué Podor entrée ba Moussa Diop boo ko doon défendre yooyu yëpp maa ngi fa maa ngi fa. mun naa laax Marème fay sàll mi fu mu séddalee ay laax ci deuxième tour yi moom Marème Faye Sall ci boppam takk ndiggam gis nga léegi rek la dëkk bi wax gis nga te loolu ñu taxawee woon ba jël ko teg ko ci ngoo nguur gi xeex Ablaye Wade lu ko gën a garaaw fi nekk lu ko gën a méttee fi nekk soo jeexalee da ngay jeexal dem ci teraanga ak njekk googu ñu koy woo mu demal boppam parce que jeexal na ñu des ñëpp dañ koy jay maa ngi dégg dem Omar yu muy muus muuslu naan moom d'accord na ci ñu pousse élection yi pour 2026 day soob rek gis nga élection yi 2024 bu soobee yàlla lay am far force ñu bëgg ko mu neexu sëriñ si ñuy dem di waxtaani xam nga lu mu fa Macky Sall mën a wax pour mu neex sëriñ si mooy ah mankat kat ma nekk candidat gars yi ma ko bëgg a jiiñ mais 2024 moom. élection dina am te Macky Sall du ci bokk. waaw xam nga kuy dox guddi li ngay dox moo jubul rek kuy dox guddi sa li ngay dox a jubul kañ guddi lay dox parce que day yàq Macky moo tax mu dem foofu guddi xam na moom non partant la. waaye ban disponibilité président de la république mu toog bëccëg mu dafa jour boobu lu mu def deful dara mënoon naa xaar bëccëg mu dem fa julli ji jumaa mais xam nga ne julli ji jumaa Tuubaa boo fa demee say ñaan soxla fa aajo faju nga dem julli ji wetu xalifa bi moo gën fu nga dem guddi gi julliwu fa gee julliwu fa benn waxtu ban heure la fa dem 21 heures et quelque la fa agsi ça veut dire muy def jubul day dem lëndëm tuuti magum lëndëm lay def ba mu waaw. mën a Sall def fa de temps toog. te sëriñ Mountakha mag la kilifa la kilifa yi dañu bokk soxla seen bopp pour guddi pour dal toog di gisanteeg seen borom jaamu yàlla heure boobu la ñuy rëjjanti problème yi moom dafa yàq yàq lay def rek loolu yàq la parce que ñëw fii bëccëg war a dox ndox wax yi nga war a wax mu leer nañ ci nopp askan bi ñëpp gis ni Macky Sall dem na Touba mi ngi noonu di dem ñu xam ne farata la fay doxi mais bu demee foofu lu mu fay wax day dem foofu jooy ci sëriñ bi na ma gaa yi baal ma toog ñaari at na ma gaa yi yërëm ma bokk. mais est-ce que loolu moom la fa war a waxi. donc waaye Macky Sall lay waxam yooyu yëpp rombul mandat bi gis nga koo yowoon xale bu ndaw ni ko Macky lu muti woon Touba ci sëriñ bi mu dafay dem ci sëriñ bi rek pour ñëw dem lay lay lay lay def lay parce que li fi xew il faut nga lay li fi li ñu fi yàqal li ñu fi rey dafay dem lay ji foofu léegi bu layee ba pare dafay ñëwaat ñibbisi noonu non non non il faut mu am lu mu fa wax il faut am lu mu fa ñaan ñaari at kenn du ko mayaat 2024 dafa jeexal na dem Macky moomuñu yàlla da koo bind bind ñeneen waa APR ci boppam ñooñu fa nekk ñoom la ñu war a waxal ñoom am nañu ay doom am nañu ay jabar Macky Sall seen moroom la fii bu ñu jàngee la jàngee nit da ngay dem ba toog xëy ngeen ko eh sa yow góor nga ñuy góor jàng nga ñu jàng jeexal nga ñaari at bàyyi ñu ñu dem xanaa ñoom dañoo dañoo tële ñoom ñëpp waruñu tële war nañu man jiite réew mi ñu nekk ay candidat wane ni ñoom góor lañu Macky Sall rek nekku fi ñu ne indispensable ñun Moussa Diop mi ñu àndal sax dañuy toog di ko critiquer di ko wax ni ko du noonu wala nii la wala bu taxay wax ñun ko déedéet Moussa li nga bëgg lañu bëgg wala nangam il faut que nit ñi di oser di wax loolu que mu nekk Ousmane Sonko ñu ko wër ak mu nekk Macky lañu ko wër nit ñi tant que politiciens yi leen jiite du leen wax dëgg dëkk bi ci yàqu la jëm bu ñu fi nit ñi xam-xam. deux jours seize metti la te ñàng na dañoo waxoon du fi am looloo ëpp garaaw xam nga lan moo gën a garaaw Idrissa see ko wax man doo samay wax de parce que fii loo wax ñun la kaay de ko wax RFI nee na su Macky Sall waxee ni candidat la dina gis lu gën a piir lii piir nag daa am fu muy commencé ak fu muy yem daa waroon wax ni Sénégal dootul jàkk Sénégal dootul dox Sénégal dootul baax parce que bis bu waxee ni candidat la élection présidentielle yii di ñëw baa mun day yokk. moom xamul nit ñi dañ ko mere ba fii guuxal ko moom yëfam yooyu lañ bañ a dégg candidat la wala day yokk élection. dem nañ. ñun dem nañ ci dialogue bi. bokk nañ ci bokk nañ ci non Moussa Diop bind na lisam jox turam ci liste bi Macky Sall bëggul Moussa Diop wax na Moussa Diop raxasam day faq bool bu waxoon day wax njaaxum te Macky loolu lay bañ a dégg parce que Moussa dafa fit Moussa Diop amul lu muy ragal am na fit. te ñun ci dialogue boobu ñun li ñuy bokk lu ñu bëgg wax nañ ko Moustapha Niass nee nañ ko ci condition yi première condition bi mooy Macky Sall du bokk troisième mandat moom du am fii ci Macky Sall wax nañ ko aussi ni ko gis nga sa gaa yi ngay waxtaanal pour ñu bëgg a layal sa troisième mandat bi bëgg leen a baal ñuy ñuy saraxu baal ma baal ma muy Khalifa Sall muy Karim Wade yooyu ñun d'accord duñ ci mais Karim Wade na am jom mais nit day am jom man Sénégal laa xam fan la jom nekk. Macky Sall jàpp la fii di la guute mbaay tëj la fii sénégalais yi aussi kenn xamul sénégalais yi ñoo mën a yor ñaari couleur ñëpp a taxawoon doon xeex karimwaat Wade Yaana Amaro Alentino ne Karim daa sàcc sunu xaalis Macky jàpp ko ràpp tëj xëy génn ko dëkk bi xëy ñëw naan lañ ko baal mais buñ ko baalee kan lañ kan lañ war a dut baaraam réew mi nañ bàyyi kon politique. am na si mooy lan parce que pour ñu juboo ci lan Karim Wade mu bokk ak ñàkk bokk lan lañu lan la ñu yàqal. ay élection passé na fi bokkul Khalifa Sall ay élection yoon fi baaxul bokkul te ñoom ñoo ko wax fii mais dañuy dem léegi di yalwaan ci Karim ci Macky sàll dañoo bëgg bokk léegi yow pour nga bokk sa mandat pour mu baax pour nga baal ñu ñu bokk. mais su fekkee sénégalais yi ñoo soxla sénégalais benn sénégalais kon bii paase xanaa soxla wuñ ko woon fii kenn soxlawu fi kenn affaire bi gis nga ay màgg di politique yi wër PDS ñoo fa nekk di ko waxtaanee Khalifa Sall mënuma toog ni Khalifa Sall xanaa taxawu Dakar Khalifa Sall lekk fa nekk intellectuel xanaa ñoom jóguñu parti socialiste bi nga xam ne doon former ay nit ay administrateur nga fa ñu ko dàq jàng rek nga fa. aw ma problème ak xalifa Sall dama ko gis àll man dafa neex yendoo na ak moom. non non man neex ma teelu ma bañ a wax sama dëgg de dama dëgg dama koy wax Moussa Diop wala gën a xam loolu man sama dëgg dama koy wax fu ma fekk Khalifa daf ma neex parce que dama ko gis réunion yeewu askan wi muy yemale ñëpp di leen wax noppi leen gars di noppi mu mel ni ku nekk conseil des ministres muy séddale parole maa ko fekkee ñu dàq Bougane Gueye Dany fii ñu réunion yëkkati loxo Malick Gakou moo proposé nañu def vote ba xam Bougane day toog wala du toog ñu ñu def vote bi ñu voté ñan ñoo d'accord pour Bougane toog kenn yëkkatiwul ñu ne ñan ñoo d'accordul man maa yëkkati ak ay Aïdara muy deux voix contre ñu dàq Bougane ni ko génnal mu jël ñaari portable mu génn dem effectivement Khalifa Sall moo toog ni Bougane Gueye Dany moom su si ñëwul accord yi du fa toog. dañu bañ indi vote ñu voté ñu dàq ko mu génn maa amee ay ñu dàq ko mu génn ñi ci des moom voté wuñu contre voté wuñu moom ñi ci des ay nii wii nii non lañ te gis nga nit politicien dangay ngay am choix mais dañoo lànkoon toog téye seen i baaraam amuma problème ak Khalifa Sall parce que gis naa ko à l'épreuve buy doxal réunion yi day laaj ku nekk sa xalaat ñu wër toog wax problème bi moom benn affaire la da du reetaan Khalifa Sall du ree te nit ku du ree baaxul ci réew de da naan mais kii lan la mer. muy yow foo ko gis. Khalifa Sall day Khalifa Sall non ay foto yu ko wër ay ngénte lay doon Khalifa Sall doo ko gis mukk mu wax ba sourire amuma problème parce que dafa ma neex ne am na lu ma jàng ci diggante boobu ak lu ma fa jàng bien que aussi nag moom li ñu gën a métti ci àdduna ci politique moo ñu ko teg parce que moom moo ñu trahir ba bokk nekkuñu ay député heure bi man député laa naroon a doon maa la wax lii man maa ngi foon tous les jours man maa yoon commission dans la région de Saint-Louis et parce que daf ñoo woo ci permanence am woo Saliou saar mu toog mun na chaque parti na envoyé list ay représentants ak seen ay casier judiciaire mu wax ku nekk fan lañ la bëgg dugal ak ban position ñu toog fa yendu fa man maa toppoon ci Aïda Mbodj Aïda Mbodj bi mu ñëwee dafa inscrire ay nitam ba pare jóg dem ma inscrire sama ñu dem permanence su Khalifa Sall fii ci Sacré-Cœur taxaw foofu ñu jël suñu document yëpp def yëpp ci ay classeur jox ko Saliou Sarr Saliou Sarr tëj document yi foofu biir taxawu Dakar denc ko foofu jóge fa ñoom ñu dem yoot waxtaan daje réunion daal di daje ministère de l' foofu la ñu indee ñoom seen ay ñi ñu bëggoon investir gis nga jour boobu Pastef indiwul benn listam pur indiwul listam ñoom dañoo daje après fële jël suñu këyit yëpp nga xam ne ñu mënatu ñoo bokk fenn ñun nëbbu ñu foofu dem fële ministère l' intérieur defal seen liste. moo tax yàlla ñëw gis nga ñun suñuy àq da leen di dal laa yow mi diin da leen di dal parce que dañu ñoo tooñ ay gor ku leen tooñ di nga ko gis Sénégal boo xam ñu naan non dañu ñëw baalu ñu àq parce que tooñ la suñu kayit lañu jël ñu ñoo moom externe externe naissance ñoom moom suñu ay casier judiciaire jox lañ ko tëj ko man Moussa Diop moo tax porté moom plainte Saliou Sarr dama doon porté Saliou Sarr plainte wala bu ma ko fekkee ci mboor poñe ko dóor ko ay corpañ mu jox ma samay kayit parce ma yor samay suñuy CV suñu yëpp ñu tël ko tëj ko foofu dañu nax ils ont moo tax après seen liste baaxul yàlla ñëw seen yëf ba yàqu kenn nekkul député c'est ça la réalité gis nga Sénégal fii dëkk bi ñun dañ jàng politique muus nekk ak ñoom depuis pendant des années jàmm ji ñuy woote nag moom la ñëpp bëgg mais dañu ndimbal na ca fekk loxol borom jàmm ji dafa war a commencer ci Macky Sall mu bañ a bokk ñaareel ba li nga xamante ni bi da ko bëgg a négocier ak ay nit di ko waxtaanee. ñëpp ni tekk nii kenn waxul parce que am na lu ñuy waxtaan bis bu ñu ko génnee fii am na ñoo xam ne bokkuñu fenn te ñoo ngi fi toog si nga ñoom Babacar Diop ñi ngay xeeb ay ñoom Cheikh Bamba Dièye yi ay ñoom Giraas yi am na gaa yoo xam ne ñi ngi fii de ay jeunes leaders lañ de ñoom ñoom Moussa Diop yi ñëpp ñoo yam ñi ngi toog jàpp seen njàmbur. waaw dafa man dama ne ñoo ñu laa wax ñu ngi fi toog am kàddu ci réew mi te kenn boolewu leen ci ci waxtaan wi ñuy toog. bëgg def waxtaanu boo xam ni Karim Wade la xalifa sàll Macky Sall ak Ousmane Sonko. bëgg a jël nee nañ dem ba xaaral nee ñoom ñoo ko yor 2024 mais yoruñu dara am na lu ñu jàngal nit ñi Ousmane Sonko am na lu mu jàngal nit ñi di kaa leen fekk ma fii ñëw leen fii am na lu gars yi jàng fii léegi ci réew mi fii léegi kenn mënatul seen nit ñi ak jeunes yi Sonko moom du dem di négocier ji parce que moom yàgg na koo bañ. man de bés bu ma gisee Ousmane Sonko dem ni noo gisee Macky Sall nag moom ma wedde sama xarit Birame Souleye naa ko wax ne ko Birame yéen a du ngeen négocier <laughs> loolu moom yaakaaruma ko moom négocier nga Macky non dama leen di vaar moom <laughs> loolu moom yaakaaruma ko. Moussa Diop dama ko gis muy politique mu nekk Paris ma nekk fii liggéey ministère de la santé ñu daje ñu présenté ñu mu dafay bëgg a parti politique gis na samay ambition booba sama tànt nekk présidence de la république. nekkoon directrice de camp cabinet bu Idrissa Seck bu xam Idrissa Seck lu ma xam ci Idrissa Seck parce que moom ko wax après moom bon ma ànd ak moom ñu créé parti politique AG jot na ñu ànd ci mu nekk nit ku baax ku bëgg réew mi ku am fit ku jàng am xam-xam parce que Moussa bul fàtte ne Sorbonne la jàngee moo Karim Wade ñoo jàngoonoo Sorbonne pendant quatre ans ay promotionnaire lañ fa lay génnee mu ñëw ma gis ko mu dëggu ma ànd ak moom ma koy xool nag. ba ma ko xamee ba léegi nag ci loolu la nekk bis bu wàccee yoon bi ma wàcc yoon bi loolu la ñu nekk ci parti mu am ci man confiance loolu la demee ñu dem Dakar dem dikk mu dem Dakar dem dikk jël ma ministère de la santé ni maa dama dikk foofu di jàng mu créé fa benn boo xam ne loolu laa doon def ministère de la santé bu doon doxal Dakar dem dikk loolu la woon muy suivi évaluation parce que loolu projet yi nga koy fekk mu ëpp mu nekk foofu muy ni loolu ma nekk fi di fi mooy sama relation ak moom ñu ànd bokk parti bi mu nekk wa sama grand bu baax. mu xam nga xam ne dama lay wax benn affaire ci Moussa Diop Moussa Diop avocat la Moussa Diop lii mu wax nii mu ngi ko waxee ci conférence de presse F24 mu ñëw keroog télé yokk leneen indi ay kayit téye ko ni ay preuve la. ça veut dire que Moussa su yoree diis par un lay jóg escalier lay def day def un deux te dafa ñëw nag daal di menacé daal di daal di nag jox daal di nii nag dama procureur woo gis nga Moussa Macky Sall ko xam Moussa jóg du yor benn preuve di wax du yor ñaari preuve di wax lu mu wax day wax lu dëgër lay téye. déggoo lu ma la wax. Moussa su waxee benn yor na fukk. te du wax loo xam ne du dëgg moom du def ay affirmation gratuite Moussa dëgg Moussa Diop ak diffamation lu mu la wax téyel teg baaraam dama ne la avocat la kenn du ko jàngal loolu ñaar dafa jàng politique. ci leneen ak leneen lu mu xam Moussa yem yàgg na ci réew mi Moussa Diop nekkoon na ci gouvernement bi Moussa Diop am na ay relation Moussa Diop Paris la nekkoon Moussa Diop gis nga Sénégal Afrique lu fi nit di def li ñuy wax réseau nit ñi am nañu ay réseau dafa wax nag. te ku am fulla la te kenn du ko yàpp te ku am fit la te ñu mu àndal tamit ñu am fit lañ kenn du ko di doon nañ ko fi bëgg a fi ci Dakar dem jël xaalisam mooy directeur bi passé bi fi jógee Omar Boun Khattab Sylla ñëw fii toog koo xamante ni bii vraiment man awma ci moom benn respect bien que nag sama xaritu xarit la on a un ami en fii di commencé ko fay xaalisam ba pare téye ko di ko font naan musaa dafa def musaa Moussa du falsifié dara Moussa Diop du ay kuy falsifier kayit de moom kay day wax gars yi nii wax na dëkk avancé dem mais di ko ci jéem a tegal benn problème wala benn coow non loolu moom kenn n'ose pas waaw man lu leer laa lay wax. mais xam nga bu fekkente ni nit ñi dañoo génn di wax autorité génn di wax li muy wax tiital askan wi yëpp ku dem kan moo tiitul. nga bi fetal ci mber di dox mais ñëppay tiit suñu xëyee nit dee na nga dégg rajo bi dee na dee na dee na fetal lañ ko dóor mais kan moo dul tiit kon su kilifa génnee di wax dafa war a wax lu leer surtout ñu jox la sécurité da nga war a wax lu leer jàpp nañu nit wala xam nañu wala xamuñu mais bu fekkee li ngay wax leerul ku xam da ngay génn wax mu sax su xamee denc ko est-ce que daf ko war a denc dafa war a génn moom mu wax li mu xam. koy gindi Sénégalais yi. mais est-ce que stratégie politique moom du def dara pour ay politique musaa du def dara pour ay buzz musaa Diop avocat la nee la avocat xam nga lan la xam teg ci yoon droit musaa bañ na ko ba su demandé mars su ñu ko joxul dana man légaliste la dama la Moussa Diop bu nee la suba dee taw jàppal ni am na information yu wóor ko nu leer ni ko suba day taw loolu moom lu leer la avocat la du politicien. Moussa Diop homme politique mais du policier yi xam ne dañuy wax di sànni ci ngelaw li nii rek su Moussa Diop gis nga fu ñu ko faaree fu mu wax weddi boppam gisagoo ko <laughs> non nañ koy leneen Moussa kay gaayee ko xamul rek te F24 googu mu nekk di wax waxu CPI te bis ba ko ci gars yi toppee dafa gis projet boo xam ne dina aboutir de lu duggul ci lu lu àgg de te di nga gis mu jël fa ay nit fii di leen traîner laa la wax à la lu leer laa lay expliquer nii. lu avocat wu maa ko la benn affaire bari na fii ay sénégalais yoo xam ni xam lu ñu xamee Moussa jóob Paris ñoom ay problème avocat droit Moussa Diop ma wax la benn affaire bu ndaw parce que li may wax nii du secret Moussa Diop Alioune Sall rakku Macky Sall la njëkk a xam que Macky Sall Alioune Sall rakku Macky Sall la musaa njëkk a Diop njëkk xam que Macky Sall ci dossier moom koy défendre te foofu laa ci mën a yem. boo xam ne Alioune Sall moo ñëwoon moo koy défendre ci dossier boo xamante ne bii Alioune moo ko ñëwoon jël ko engagé ko te xam naa dossier bi lan la xam naa lan la woon demee woon kon du affaire boo xam ni ay day wax ci ngelaw di sànni nekk yu kenn xamul ñoom ñoo la ko gën a xam. xanaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama ay soxla nag dama leen bëgg lool mais nag di wax benn affaire fii Sénégal jullit yi ñoo fi ëpp jullit yi nekk ak. ñi nga xam ne duñu jullit ay chrétien nekk ci jàmm jàmm jooju sagam suñu xuloo di xeex ci diine senegal ñëpp ay kal lañ Sénégal fii dangay gis nit ni sama tukulóor bi wala sama séeréer wala sama joolaa bi mosuñu am problème mu ethnie tey jii ñaar nit ñoo ñu bëgg a fàtt bëgguñu sonal bëgg fi indi ay affaire u bëgg fi indi ay affaire ay diine muy Macky sàll ak Ousmane Sonko te loolu mosu fi am. nañu delloo si seen xel ñoom ñaan ñëpp te xam ne réew mi moomuñu ko ñu nekkaat ci jàmm dellu ci jàmm politique sëriñ si ak kilifa diine yi nga xam ne bu ñu génnee wax xam nga sëriñ si li tax duñu wax parce que booy dañ leen di saaga moo tax duñu wax ne na leen bàyyi man même Moussa Diop da koy wax nañ bàyyi sëriñ si naan wax leen bu ñu wax sëriñ si kan la ñuy war a waxal ñi war a waxal mooy homme politique yi war a def déclaration yi ñu war a xaar ci ñoom Macky Sall tabaski mu jub si na def déclaration daan man bokkuma ku ko neex moo xam Farba ngoom la moo xam Marème Faye Sall defe naa parce que ñoom ñaar ñoo yor réew mi bu ko defee mu ne kii mooy jiitu ñoom àll ñoom waa parti am topp ci su ko defee mu dem élection ñeneen ñi dem élection ñëpp bokk bu fekkee day baal ñee saraxu mu baal leen ñu saraxu mais Moussa Diop moom day bokk élection bu soobee yàlla incha allahu rabbi kenn mënu koo teree bokk élection présidentielle waaw lu mu laaj moom dinañ ko def loolu laay sant di leen gërëm. sama cameraman bu jantale bi di nuyu aussi tamit ki nga àndal fii sa collègue bi maam Diarra merci beaucoup.